Pikine kërmasar Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. waaw sëñ Ahmadou Badawi mii lay waxal nee ak ñoom ñooñu <laughs> sunu kilifa yi tedd yi <laughs> di ndax ñoom ñii ñoom si Ahmad ba mu ñu xamee moom is ci la ànd ak ñun nee na boobu dafa daan wax ne gëmewuma leen gëmewuma leen mu ànd ak ñun ci loolu ànd ak ñun ci loolu ànd ak ci loolu ba am yàqin ci ñun ñunu <laughs> digganteem ak ñun noonu la demee nee na lépp sëriñ bi la. nee na waxoon na ne sunu ànd bii noog moom. nee na du nun du moom. nee na pàggu teefu sëñ rek la. nee na sëñ lu mat a fàggu fàggu na ko. tey jii ak ëllëg. nee na jubóo na ceeg boromam. nee na nee na buñ ko gisul. nee na boromam a ko nekkal. bu ñu ko wooyee. boromam mooy wuyu. nee na lépp noonu la nee li ci am solo nag nu xam ko di ko jéem a xam waxtu ne nee na du lu doomu aadama mën a xam sax waaye nag doomu aadama am na lu ko yàlla cërale la mu ko cërale nag na ca def kem kattanam ngir xam sëriñ bi nee loo ci xam rek mu nekk njëriñ lu rëy tey ëllëg nañ ko nañ ko jéem a dund nag. suñ ko jéemee xam ba noppi. nañ ko jéem a dund. buñ buñ ko dundee rek. neen taxe àdduna ak àllaaxira ngoog. fii di ko dund. da nga na boo demee nag fekk fa la ko taxoon a jóg. neen noonu rek la demee. neen sëñ bi noonu rek la demee. kon sant sant yàlla rek lañu war a def. te xam li ñu am nag. te xam li ñu am nee na xam ngi weesuwul li mu wax rek. nañ ko jéem a xam. di ko jéem a dund. nee na bu ñu ko dundee rek. nee na alamul islam yëpp. ci. nee na benn kuréel dootul mën a kawe. bu ñu dundee sëñ Tuubaa. bu benn kuréelu lislaam. benn kuréelu lislaam. mën a kawe. dootuñu mën a kawe. nee na kon noonu rek la demee. sant bu baax nag. jërëjëf waxee woon rek ñun dañoo am tawfeex rek. jërëjëf. ngeen waaw mhm. bi gën koo dund jëm kaw mhm. mhm. dafa noppi fii. ci kaw suuf ci ci kaw. ci kaw. kaw mënaw ci kaw mënaw yàlla yi fii ci suuf. ak ya ca kaw ñëpp jox leen seen àq. ñëpp dem ca boromam. door a des fa borom kooku eh, eh, ay eh. sëñ bi dañuy jéem a xam rek neen sëñ bi weesu na foofu li gën a yéeme li gën a yéeme neen li neen li gën a yéeme ci lu doomu aadama mën a xam mooy sëñ bi ñi mu bokkal boromam ñëpp nee na sëñ bi ñi ma bokkal boromam ñëpp nangul nañ ko nangul nañ ko ndax daf leen jox seen àq moom mat sëkk. la ko boroom def. la ko suñu boroom def. suñu boroom def ko ci moom. boroom def ko ci moom. ñu nangul ko ñu nangul ko. kookoy sëriñ bi dañuy jéem a xam rek dañuy jéem a xam rek. nee na dañuy jéem a xam rek. alhamdulilah sant rek nu war. la ca dara bi nag. waaw nii rek nii rek. yitte jëpp. yitte jëpp jëme ko ci moom. waaw nee na la ca dolli ko nag mooy lii rek. yitte jëpp ñu jëme ko ci moom sëriñ bi. li li doomu aadama di xalaat.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 jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. yéen doo di ko mën a ñàkk a wax ak yéen. <laughs> ak ak ñi ñi ñu bokkal ñi ñu bokkal doxin bi. loolu loolu moo indi wax. Mhm. waaw loolu kon day dellu si waat nag. <laughs> day dellu si waat <laughs> lañ bëgg rek ñun ñëpp na nga foofu ña nga <laughs> yóbbaale nu foofa rek. yàllaa koy def ci coobareem waaye ginnaaw am na ko ba noppi nag lu ñu gën a xam sëriñ gën a yokk gën a yokk lu gën nga gën a dund gën a yokk loolu na ci mën a moo a dimbali loolu moo tax eh, xalaat ji li nga xam ne am toog foofu rek lu ci ne bàggute fi sëriñ bi yëpp lu ci ne day toog foofu ci ma bii moo moo desoon ci li nga xam ne wane woon na ko li nga fa mënta ñàkk loolu moo tax gisuma lenn gisuma dara ci saayis lu dul nag ñu ko jóg ci xam tam maanaam jëm jëmal ko nag ci am boobu moo xam ko mooy jóg ci xam-xam bi ñun kuy am doom war nga am jabar war nga am jaboot nga góorgóorlu jëme njaboot gi ci ñu nga am xam-xam mais du sëñ Tuubaa xam-xam rek ko dese ndax dafa tawféex la yàlla koy defal boobu ci coobareem mm-hmm. waaye nag li koy téye di ko sàmm di ko dundal di ko dolli mooy xam-xam loolu maa ko wax rek la eh, moo tax bi nu xalaat bi bi nu accès ci lii bi suñu xalaat dañu dañ caa yem mun nu ko ñàkk mun nu ci ñàkk jëm ndax doon dox bàgg ci lépp pàggatu sëñ Tuubaa la waaye dañoo am tawfeex nag moo tax bi ma ci yemee yëkkati sama kàddu ci jàngu ko jàngu bi li ñuy wax université université loolu ma santaat bu baax nag ma santaat bu baax mu mu bi bu baax mais suñu lépp téyegal ak te fàggul lépp téyegal ak ñoo yëkkatee sama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 moo waral daal ji euh, Cheikh Ahmadou Bamba bii moom laa ko dénk ak ñi mu ko ñàkk ak i nattangoom ñi mu ko bokkaloon ni mu bëgg bëgg dem ñi nga xam ne kenn sonal leen ñoo sonal seen bopp ci ci xam mooy suñu muy njëwal suñu tubaab gii ñu tudd ñi ñu ñu jàng kenn sonal leen ñoo ñoo yàlla dañoo am tawféex am jom amu fit di jàmbaar am dogu teg seen tànk seen siraatal mustaqim ñooñu sëñ Tuubaa ni mu ni mu ni mu ni mu faggu woon ji rek ni la faggoo ñooñu ñoo ànd ñoom pàggu te fa sëñ Tuubaa rek la ñu ndax koo xam ne sëñ Tuubaa mi ngi ci yow nga am yittiwu yittiwu yittiwoo diine yittiwoo xam-xam kooku sam naa la dan du yomb loolu nag ñoom ñu ngi nii di doon jóg rek waaye alhamdulilahi sama xel dal na ci ñoom li ñuy wutti mën nu ko ñàkk te ëllëg mooy sëriñ bi ñoom nag sama xel dal na ci ñoom ci liggéey boobu liggéeyu xam-xam boobu moom loolu noonu rek la daara ji ak eh, ñi ñi nekkoon ñi ñi ñi nga ñi nga xam ne démb bëkk démb ñu ngi doon sonnee xam-xam mooy daara ji ak sañ sañ xamal ba def ñoom waaye yéen njëkk ci njëlbéen ga dañ doon jaaxle am nañu bari dañ doon jaaxle ci yéen waaye comme ci waxal dama koy wax ne ko ndax ndax suñu borom dafa tële dara ndax suñu borom dafa jombalee daraam sëñ Tuubaa yéen foofu ngeen nekk yéen yéen foofu ngeen nekk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 waaye yéen yéen yéen yéen wéy neen rek mm-hmm. sëñ Abdou Ahmadou ñoom laay waxal yéen waxuma ak yéen damay wax damay wax damay wax ne mm-hmm. damay wax ne mm-hmm. sëriñ bi daa ah, ci li ma koy tegtale damay wax sëriñ bi leneen yi boromam la ndax jullit buy buy buy wax bu ne war naa na sédd sa bokkale jullit buy wax ak ak wax ak ñu ko ñor ñor na sédd bañ bokkale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 lu ma war lu ngeen bëgg rek lu ngeen bëgg te mënu leen ko ñàkk rek wax leen ko lu ngeen bëgg ci liggéey bii seen taxawaay bii ak nu ngeen ko bëgg lu ngeen ci bëgg te mënu leen ko ñàkk wax leen ma ko ma ànd ak ko ba jeex tàkk sëñ sëñ Mountakha Diatta yaa ngi yéen a ngi dégg. ñëpp a ngi dégg ñëpp a ngi dégg waaw ah, loolu fii fii moom day ma fi moom nan nan nan nan nan nan nan nay Carrefour bi. sëñ Tuubaa moom dañu fa daa yëmul fenn. daa yëmul fenn. lu nekk ñu nekk ngi ci. classe bu nekk ngi ci waaye ñun ñëpp. yoon kenn nekku ci waaye liggéey bi nag dafa am dox dafa dafa liggéey dafa am nu ko koy doxalee waaw liggéey bi dafa am nu ñu koy doxalee waaw bi moom dafa am yoon waaw ñëpp xol bu sëñ Tuubaa xol boo xam ne sëñ Tuubaa nga nga ca xol ba kooku am na tawfeex ba noppi am na tawfeex ba noppi waaye nag liggéey bi moom dafa am nu aw yoon yoon bi mooy